sooru tafsir saaru binal makkee bu ko jox makka la salaasu ñett la waxam sama ak juróom fukk ayaatan ci kaatee bismillah sama wax sama jiitu nu buur rahmaani kadaa ji xewal milaas ñëpp caatu yaare yi kadaa ji xewal milaas yi alaaxira xatatu waa moo ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko léegi damay wax sa diggante ak ñooñ makka na nga bay yi la ngay wax su fekkee ni da ngaa bëgg a tànn ñu xol la soo bëggee xaral ñu dajale la xaral soo bëggee jigéen ñu dajale jigéen ñu rafet ñëpp jox la da nga bàyyi li ngay wax soo xob su fekkee jinne la jàpp ñu faj la soo waxi caaxaan yoo wax a wax ba àggal yonent déglu ko ba mu àggal mu ne mu ne ko àggal nga mu ne waaw yonent daal di dal ci bopp tafsiil da jëf day naa la doo foog la am dëkkum saa xasal mi de saa xasee aar yi samoo de waaw mu fab loxoom teg ci gémmiñu yonent bi ne ko lent lu naa la bokk ci mbokk bul waxati de waaw ci bay pat pat yi loo kawaram yi di guddeeku waaw ba mu fa jógee dem ca waaw waa Makka ñu ko yónnee woon ne leen dégg naa ji waa ji lay wax joo xam ne du waxi nit du waxi jinne waaw du woy du njabar du nar lii ma gis daal waaw waxi borom bi ñëw la de ndax wax ji daal suuf gi am na ren bi dëgër waaw te kaw gi am na meññat de te wax jile dafay ko waaye duñ ko not mukk ba fa àdduna yem ñu ne ah yow da ngaa bëgg a jàng waaw mu dem toog néegam waaw ay fan daru xureetu waaw gannaaw ga mu dellu dellu at ci kéefaram de moom la góor di wax ne xaamiim tansiirun di leeg wasal la mina rahmaani ci ci aji yërëm ja rey rahmaan yi aji xewal mi daal ngëp caat mi ara yi mu ko dee aji xewal mi daal ca àlaxira kitaabu ñi de téere la ku silat bët bi daleef na aatoo kaafeefam téere la boo xam ne digal nañ ko ci xatte ak ci solo ak ci waat quran mi ñu alquran arabiyan bi ñu ko def yaaram li xaw mi ñeel aw nit yàlla moo nañu gën a ñëw dégg yaaram basiran mbir mu aji dëgal moom alquran ku gëm na moom aljanna wana fi ram te jaragaloo ko dina moom safara de fa aral sa dëdd ak soroom gën ci bëri seen boobu ñoom la as moom a dégg tii de waqaalu wax nañu ne xulóobu naa ay xol sunu fi ak na sunu aji nekk la ci muuraay ñu maa ta dama naa ca la ngay xooru yi lay jëm ci moom ñu ne seen xol dafa muuru ba mënu ñoo gis alquran ji lee ba fi asaani naa aji nekk la ci nopp sunu waqurun ak tax ñun sax dañoo tax mënu ñoo dégg li ngay wax wala bay ni naa aji nekk la diggante sunu ba bay ni tax diggante sa hijaabun kiiraay te gisuñ la sax far hijaabun wuuteeg diine ci daay li mooy wuuteeg diine rek bokk ñoo yow diine fa amali jëfal ci sa diine ina naa naka nun am yoona koy jëf lañu ci sun diine de kul waxal ina ma ana naka man basarun doomu adama raa mislikum di jëm seen yooye def na wayu ilee jëm ci man ana ma ilaahukum naka yàlla seen ilaahum yàlla lamu waaye di ci di jëm fastaqimu jubleen ilee jëm ci yàlla ci gëm ko topp ko wastaghfiruhu balu leen ko astaghfirullah astaghfirullah wooy lun tattan bugal lil musrikina war na ca way bokkaale ña de àlla si na ñooña laa yowta na joxe ci ñu sakkaata asaka wum te ñoom kaafiro na way weddi lañu bi daaxara ci jaxal akara wum ñoom kaafiro na way weddi lañ ko de ina la si na naka ñooña amono gëm nañu waa ngi weetañ jëf saalihaati farata yaag naafile lawum ñeen na leen ak juróom yoxal xayru moom noonu bu dumu buñ dagg de xol waxal a innakum naka yéen la takkuroona da ngeen weddi bi la fii ci buur bi nga xam ne xalaqa bind na mu la rasuuf yow mee ni ci ñaari bés ngeen ngeen di weddi yàlla mi nga xam ne moo sàkk asamaan ak suuf moo bind suuf ci ñaari fan bésab dibéer ak bésab altine wata jaloon te ngeen di def law ñeen ko andaadan way bokkaale ngeen di sàkkal yàlla waaw bokkaale saalika koob le rabbul aalamiin mooy aji moom bindéewi de ci bind suuf ci ñaari fan waaw ci nattale waaw moo bind mooy borom bindéewi de wa jaxala def na mu fiyaa ci suuf rawaa fiyaa ay dëj am fanay dëj yi tëye suuf min soo xayaa ci kawam wa baraka barkeel na mu fiyaa ci suuf def ci ndox yi di jiya waa ak ci mbay ak ci xenaat wa qadara dogal na mu fiyaa ci moom aqwaataha ay dundam dogal na ci lépp loo xam ne mooy nekk dundam nit ñi ak loo xam ne mooy nekk dundu bàyyi ñi te arbaati ayaamin ci matal ñu nañ ci bési ci def waa bési talaata ak bési àllarba ci la mottali li nga xam ne moom man ci woon ci dundam suuf sawa mbir mi ngi waxe moo li saahiri na ñeel way laaj ña de waaw su ma sawa topp mu jublu ila sama jëm ca asamaan gannaaw ga nag mu jublu asamaan wayete moom duxaanun faxat la asamaan yi nekk faxat rek yàlla bindagu ko faxaala tam wax laa ñeel ko wali darli ak ñeel suuf itti yaa dikk leen ci li ma namm ci seen ñaar sawan mbir ñu leen di way coobare aw karam yi te mbir ñu leen di ñu mënante de ñoo leen ci li ma namm ci yéen ci coobare wala ci par force de xaala saa ñu wax ñoom asamaan ak suuf ate naa dikkal nu dikkal nu taa yeneen di mun di way coobare de fa xabeewu na te mu matal leen ñoom asamaan yi itam saba samawaati ñu juróom ñaari asamaan fi yow ma ñu ci ñaari de mu mottali bind ak mbindeef yi ci ñaari bés yi ci des alxames ak ajjuma musatal jigéen daal ci la yàlla sañ ci àddina waa ci la bind waa asamaan si waa suuf si asamaan si waa samp garab yi waaw moo tax muy di sab sañ ci altine ci yàlla bind waaw jant bee weer wee guddi yi digga leen ñuy dox salaata yàlla bind jur gi daganal pour seen ndàmm alarba yàlla bind géej gi daganal seen ak naan waaw dund yi ci kaw suuf yëpp mat na waaw ci fan yooyu alxames yàlla bind aljana ak safara keneen loo aljana ragalu safara ajjuma yàlla bind aadama te saasu bu gise mu bind xawaa jabaram may ko ko moo tax ajjuma di bisab sëy moo tax waaw mu di juróom benni waaw juróom benni fan yi nga xam ne ci la sos àddina ñeneen ci fan yi yëpp ci suufam li ci haaju ci solo dund doomu aadama yi rek ñaari fan yi asamaan waaw bu di juróom benn waaw yetam wayu fi ku ni samaan ci jëpp asamaan am raa biram asamaan su ne yàlla yekk yool ko la nga xam ne moom lay topp yàlla boo sa yenn rafetal nanu sama asamaan sa dunyaa sa di aji jegeñ àdduna duna saa bi ay ci biti wayu sam ak dañu wattu ko wattu saalika loole wax birul xasiisi moo aji not waaw mooy bind aji not ci góoram alaali mi ko daa ji xamay mbindeefam de fa in arado njëm dëdd nañu nag ñoom ñooñ makka bokkul waxal ne am sartukum ragal loon naa leen saa xasan manu mis la saa xati haadin guddi kem manu haad wa samuda samuda da leen xalagoon de is jaadum ba dikkale leen rusulu yonent ye min bay ni aydihim ca kanam seen moom xalfimal ca gannaaw seen ba leen yonent ye ñëwalee kanam ak gannaaw waa leen yu lànk yàlla fa wàccoon ci ñoom xaaju jiw yi ñoom ci ñu xalaku den te dañ leen a waxoon ne allah taab boobu leen jaamu ila laa ndara yàlla xaaloo ñu wax ne law saa doon te sooboon na rabbuna borom sunu daa am sala konte mu wàccee malaayika dana ay malaaka yàlla bu bëggoon ñu gëm ko dafay indi ay malaaka bay naa naka nun kaafiroona way weddi lañ dina aussi tum te la yoon yëf leen de fa amma haadin daal haab fa stakbaroo réy nañu ci la rajo suuf bi xaari laa ko ci tooñ waxaaloo tañ wax man asaddu ana kan di gën jafat mi naa ci ñun ko watan ci kattan ku ci meraa da ngay buddi ba ñu dee sànni lu ba ñu réy réy rek da nga koy buddee sa loxo càmmoy sànni da leen yonentu ba tëkkoon ak ñu ne ko ñun yàlla mën a lu ñu dara ñun kenn ku ñu doole yàlla sax ku ñu doole ku ci gën a gudd da nga am téeméeri mètre ci seen mètre yi ñoom téeméeri xasab ci seen seen xasabu yow li jëli gàtt gàtt da nga ma juróom benn fukki xasab ci seen xasabu ñoom waa ay nit la ñoom ñooy ñun ñu bëri na ñu ne yàlla sax mënul leen dara de di digg ba ji sani de góor ne awalam yaraw ndax dañoo xamul ne anna allah naka yàlla le fi yàlla mi nga xam ne xalaqahum bind na mu leen woo moom ashaddu moo gën a tas ñun ci ñoom quwwatan ci kattan moo lu ñu rëy rëy xanaa xamul ne yàlla leen bind xanaa lu ñu bëri bëri doole kay yàlla ci leen bind moo leen ëpp doole wakkaanoo tam nekk dañu doona di weddi bi aas naa ci kaadef yi ñu wedd rek kaadef yi yonentu bëri faartal naa tan xiir alayhim ci ñoom riyan ngelaw sarsalan di aji riddi te am ci jëf na saa yi di gaaf ñoo indi leen waaw ngelaw la leen xalal nag ci fan yoo xam ne fan yi gaaf lañ de mooy xalal bi ñu mujj ci weer waaw xalal naa xalal bay kare dañoo toog rek yàlla sànni leen bekkoor ba nga xam ne dañ nañoo gis taw waaw mu dañu ci ci woo xam ne mosuñoo gis ñu ñu leen moom waaw yonent bi ne leen ñu ne ñu mbugal maa ngi ñëw ñu ne ko déedéet lii fi ñuy xool si rek la waaw mu ne leen déedéet fi la woo xam ne ngelaw lay indi loo xam ne daf leen di xaaral ñun ñu ngelaw ñun ñu ne la yàlla mën a lu ñu dara nga naa ñu ngelaw ngelaw lu ñu mën a ñun ñun ngelaw mënu ñun tudd yonent ba ne baax na ba ngelaw la riddee rek ñu jëm seen gëlëm yaa ngay xolombaay ca kaw waa xaaju naaw ni xob te li ñu rëy yëpp gëlëm yeneen ci kaw gëlëm yi gëlëm yi dañ daawaat ah ñu ne laa ngelaw kat mat naa wattu ku nekk nag gas boppam ba tax maa ci ko jindi jindi suul ko kon ngelaw yi ñu ci mën dara ñoom ñëpp ñu suul seen bopp waaw ngelaw la ñëw rek waaw guddi leen jóor leen de ñu mel ni gàtti tàndarma yi njóor ñoom ñëpp xalaku nañ ci xalar bay jindi ji ci weer nag ci la xeet yëpp ci la ci lañ xalakoo moo tax ñu di ko tudde xalar bay gaaf bu ñu si xaw ma gën a musal leen asaabar ko si mbugalam toroxte de ci la xayaati dunya ci dund ba àdduna bi de wala asaabu laaxirati mbugalam alaaxira axtaa moo gën a tabbe woom ñoom laa leen soroona joofu tere leen mbugal de waa ma samuudu ndaal samuuda ña faa day naa um jubal nañ leen fa saaboo tañ tànn alhamaa kéefër alal hudaa ci gëm yàlla de faa xasanum te jàpp leen faa kadul asaabi waaw xaacib mbugal alhooni ma di borom ak dawa dal leen de bima kaana lañ nekkoon yàq ci gona di fàggu ko ci kéefar ak mooy yàlla de wana jenaatan musal ala sina ñaaña amono gëm nañu wa kaana tañ nekkee sax moom dara leen de uskur jàngatal yow ma nasru bés ba dana sang ah daa laay noonu yàlla ya ila naari jëm safara de bés ba yàlla fangee yéefar yëpp te ñoo di noonu jëmale leen safara de boobu ñoom yow sama na def na mangaleen ñoom leen di mangal waaw ceen yaag waaw ak karawaas yooyu yore hatta isa ma jaawa ba dem dikkal nañ safara bayi da seede alayhim waral leen samuhum ay nopp seen wa absaaruhum ak i bët seen wa junuuduhum ak i der seen ñunaa kaanoon ci lañ nekkoon yàmba dama doon def ko de bañ bëggee weddi nag ñu ñoo mësu ñoo mooy yàlla yàlla daal di kas ci gémmiñ yee benn gémmiñ waxatul nopp yee di wax ak bët yee ak der ba lépp di wax der xam nga jeexal na cër yëpp cër yëpp buñ ci nekk dara ko muur moo tax waxaale dañ wax li julo di ñeel ay der seen juróom ngi lan tey tum ngeen seede ale naa waral ñu ñu ne xulóog deree nag naa leen tax ngeen di seede waral ñu noonu na seen i nopp ak seen i bët ak seen i dara leen seede waaye ñoom der yi rek lañ xulóot ndax der yi jeexal na nopp yeeg bët yeeg ak der yi yëpp ku ci nekk der bee ko muur ñu naa seen der yi waaw lu tax ngeen di seede waral ñu alors ñu ne an faqanaa waxloo nanu allahu yàlla lëfi yàlla mi nga xam ne am faqa wax loo na mu kulle sey lépp la lu mun na ma wax loo woo moom xalaqakum bi ñu na mu leen wala ma def ñu ci njël benn yoon pour yoon def na jëral ñu day jëf wa maa kuntum nekk leen tastatiroona di suturlu an yastada ci mu seede ak alaykum ci yéen xamakum ay nopp seen wala taarukum du jaagen ay bët seen wala juloodukum du jaagen ay der seen de ku ciy def lu ñaaw da nga koy jéem a nëbb waaye kenn mën da nëbbu benn nëbbu sa nopp ak sa bët bopp ak sa der bi nga xam ne ci la cër yëpp sax de wala lu bi nekk sanantum jot woon ngeen ana laa naka yàlla laa alamu xamuñu kasiran aji bëri ñu maa tamaloon te da ngeen jëf ko de wa zalikum loolu seen sànnukum njort seena lasi laala sanantum jot woon ngeen ko birabbikum ci borom seen ardaakum xalak na mu leen faas baatum te ngeen mujj meel xaasiriin ca way perte ña de bay ñet jëloo dem ñu nañu mbugal ni fa naaru safara masoon sax waaye la mu loomu ñaa leen ci ñu ñëwee ci safara si baax na mooy seen kër way yastaati boo jam sàkku nañoo dellu jëmaat na nag fama moom déen ñoom minal mutabina ñu bokk yooyu ñu jàlloñe rek suñu laajee dellu àddina ne loolu mënul nekk wa xayat naa tan sabab lawum ñoo leen qurana way lëkkoo ñu indi leen nag ay saytaane ya nga xam ne ñoo leen doon réeral ci àddina lëkkale leen ñoom ca safara parce que yéen watañ rafetal lawum ñoo leen ma bay na ay diim la nekk ca kanam seen ci mbiram àddina topp baneex wa maa xalfahum ak nekk ca kanaaw seen ci mbiram alaaxira ñu weddi ko wa haqa war alayhim ci ñoom al qawlu baatam mbugal ba fii la am la jaanama ci umamin ci mboole mi xeet xaf xalal yooyu xaala ko war nañu min xawlim ca njëkk seen mina jinni ci laala moom jinni wali seen ñi innahum naka ñoom kaanoo nekkoon nañu xaasirina di way perte rek wa qaala tawa alladina ñooña kafaroo dinañu laa tasma'u bu leen déglu li haasal quraan ji la alquraan wal xaw soow leen fii ci jàngam laalakum boo leen taxliboona ngeen not ko ba mu noppi bu yonent bi jàng alquraan ñu warale ko ay nit ñi yuuxoo ko xaaci ni soow ca kaw ne bu kenn dégg li yonent bi wax soo su tayee dana noppi wala nu fii xam na buur ne dana nu mosal alla si na ñooñe kafaroo weddi nañu asaaban bugal salbina mu daaji tabbe wala nag jeenawum wallaahi xam na noo fay leen aswa allazi gën di ñaawi laala kaanu nekkoon nañu yamalona doon def ko de zalika loole fi zalika loole jasaa ataay laay mooy fayag noonu yàlla naaru waa safara rek seen fayangoo moo di safara loolu ñaan leen ca aja safara daarul xuldi kër ak géen jasaan bi mu di fay maa kaanu ci lañ nekkoon waaye yéen nga doon na di weddi te aat naa ja alquran suñu def wa qaala tawaf àll si nañ ñaan kafaro wet nañu rabbana yow borom suñu arina wannu àll say ni ñaar ñaaña adollaana réeral nañ nu minal jinni ci jinne walin teeg nit ñuñ safara mi bari daa jaam takku teeg ci seen borom ne ko léegi ñaar ñi nga xam ne ñoo jëkka mooy yàlla ci àddina ci jinneen nit nanañu leen indinde mooy iblis ak xaabil iblis a jëkka réylu xaabil a jëkka añaan waaw day bépp mooy yàlla boo xam ne jaam mooy na ko yàlla rek li ngi jóge ci rëy wala ci añaan lii iblis a ko tëral lii xaabil a ko tëral ñooñ safara nag ne ñoom ñaar ñi nga xam ne ñoo ñuy indi safara nangañu leen indil na yàlla maanu def leen taxta ak daabi naa te suuf yi ay dëggu suñu yaakoonaa ngi nañu nekk mi yàlla suñu ci way suufe ña de waaw yàlla nangu na leen loolu ku dem safara rek yaa ngi teg sa tànkam day joor ci bopp iblis sa tànkam jamono ci bopp kaw bi leen wax ñu ñoo yoonam séefar inna lasina waaye naka ñaaña xaaloo wax nañu ne rabbuna borom suñu laaw yàlla suma staqaamoo topp ñu jub waaye ñu nga xam nañ ne seede nañ ne yàlla rek ay seen borom seen jub jaamu ko moom kenn rek bañ ko sakkal bokkaale te na sël dana wàcc alayhim ci ñoom al malaa'ikatu malaaka ñooñu dee malaaka danañ wàcc fi ñoom ca waxtu dee ñu ne ci waxtu dee ñu ne ci waxtu dund waa ci jolli laa bon gis malaaka waa xaaw duur lu jomb rek say day te jagowut ci yonent yi aar naka mbit ak mbit laa taxaafoo bu leen ragal wala taxsanoo bu leen jàpp waaw loolu dëgg leen di dellu ci aljana ci aljana bi nga xam ne surtout nekkoon ngeen toona doona def na da leen ko de boo xamee ne defi dund dafa jeex waaw ci nit koo xam ne gëm na yàlla malaaka yi daa nekk ak moom dañuy ñaan borom bi ne ko suñ mbokk mi day ñu ngi bëgg a fasantikoo àddina te ñun ñoo nekkoon ak moom dañ bëgg nga may ñu dem gërëmi ko balaa dee yàlla na leen dem leen gërëm na ko ñu daal di wàcc ne ko bëggal ci bés boo xam ne bésuloo gis mukk bés bu la neexee nii tey da nga am waaw teewal gu du jeex waaw ak gëtt gu neex boo xam ne dootoo teqalikoo moom te yàlla gërëm na la te dootu la mere mukk la àddina yaa doon àndaale ju baax waaw yow nekkaloon àndaale joo xam ne bind say ñaawteef waaw ak say mooy yàlla danañu soxlaal waaw wari sa baalam suñ borom waaw su ko defee malakul mawti ne jegeel waaw jegeel jëm ci roxoog rayaanu jegeel jëm ci sa xéewal yi waaw faal janay borom rek te day dal di jox ndigal ne nañu waaw faat roxoom ji faat boo xam ne buñ ca am génn yëpp dañuy indi waaw lu rafet jëlee ko aljanna lu xeeñ waaw won ko ko moo tax nga ñu mu kundi ba di loolu ñu la ko sax ngi taarab li muy xool waaw ñuy fëkkëroo gi ndànk-ndànk ba nga xam ne dana génn te du ko yëg waaw bu génnee ñu daldi ko taxañ waaw caari rey aljanna yi malaaka yi di ko feetal ba ci asamaan bi jëkk ñooñu gàttan du ko di ko feetal ba ci asamaan yi ñaareel ñooñu gàttan du di feetal ba ci asamaan bi ca topp ba ci asamaan yi juróom ñaareel nag mu dem ci sidratul muntaha ndaa jannatul mawa waaw loolu waaw mooy waaw julit bi de suñ ko tegee ci bam tëralee ci bàmmeelam mu daal di seen dundat loo xam ne lu rafete ni moom lu xeeñ ni moom musu koo gis mu ne ko waaye lëf yi de jege ma maa la sopp waaw mu ne ko waxuma danaa la jege waaye ci sama kaw ngay war may sa jëf jiriw jënga daaj yàgg naa laa sonal say nag ci sama kaw ngay war dem sulam ña kooku mooy jaamam yàlla bi nga xam ne daf doon topp yàlla ba dee yàlla yebal malaaka yi nag waaw ñu ngi koy gërëm nag naa ko yow pour ragal pour jàpp waaw bëggal aljanna rek nga jëf nanu mun awliyaakum na way ñu ngoo seen laati ci wéti ñu ba wala kum ñaan leen jaati aljana ma ko sey ko ko ko wala kum ñaan leen jaati aljana ma ko daw nanu da ngeen xam ko ñu ko lan jëg ñu jànde yaani ko ba ka lay ñu ko yalla do góor ne woon naa sanu góor kenn di gën a rafet xawlan ci wax ñu man daan ca ko wax ni ñu lay jëm ci yàlla képp koo xam ne yaa ngi wax ñu ne moo ci gën a rafet wax ñu woote jëm ci yàlla loolu waaw moo gën a wax wax képp kuy wax rek ñu woote jëm ci yàlla nag waaw ay xaaju xaaj lañ bokk na ci réew maa ngi biir yi nga xam ne waaw ma goreel sa yaatu bi waaw ba nga xam ne tey waaw ñu ngi topp ci ñoom waaw ma nga gën saa ne ba ànd ba ak am gàmbal nekk na ci sëriñ yoon yi nekk ci néeg waaw am bari ñu ko topp ci sofiante yi waaw borom yoon yi bi nga xam ne dañuy seet ñu ngi jëm ci yàlla nekk na ci noddkat yi nga xam ne ñoo woote ci bopp farata yi waaw ñu ngi jëm ci julli nekk na ci jàngalekat yi nga xam ne dañuy defal xam-xamu soriatu nekk na ci jaaskat yi nga xam ne dañuy yanu jaasi waaw dëkk am moom ñu ngi taxawal waaw dina yàlla ñoom ñëpp dañu woote jëm ci yàlla ñooñu gën a rafet wax jaasi na wala sa sori dama ci alasanatu aw ñëw wala sa yeesu di jàng ñaaw teefe lu baaxoon lu bon seen fay ñu ko ci alaxira ci fanjañal ñu nekk ci jikko dana xam ne yéen moom ak solo moom ak affaire yi. waaw boo xam ne tey mer lool nañ la bu ñëw suñu la ñàkkee teg leen leeral suñu la defee lu ñaaw dégg leen de loolu mooy jëm ci jikko dana xam ne moo gën a rafet tey daa am suñu la fekk ànd ak lii kaaka bàyyi la kaa ñu ñàkk la digal defal boo bàyyi loolu digal jéem a dara suñu noonu te am na lu daanaka moom wala yow xarit la am ñu ba ko yëngu ko sa njubbee soo xamee ne tey yow lu leen di def ci lu bon doo ko yëngu moom lu bon waaw xanaa mer yow mun nga koy jubalee réer leer nga koy jubalee ñaar wax ñaaw jégg nga koy jubalee yàgg yàgg dara na noonu dafay mujj ñëw nekk fa xarit boo xam ne fa mel ni moom ak dara nekk di fa xarit dana fa tënde buur ne waaye wa maa yor ah yëfu jafe ko moom di ko jooju dina la si ne dara ñaare sa borom mu ngi lay waaye nag buñ ko ñu rek da ngaa lay jox ba ñu di ko dee wa maa yor ah jox ko mu koy daal waa si dara borom cëpp affaire bu daal di màgg rek borom cëpp bu màgg ci yàlla moom maa ji koo jëm di ko dee ndax daal ñu lay bàyyi dégg nga gannaaw ba mu ne fay wala maa yor sax am na ka dem tudd na la ñu ne seetaan ci seetaan na ko aji topp bu fekkee seetaan ñëw na yëngal sa naan ba tànn bëgg a fay waaw boo musul yàlla day tàng rek day leen waaw yéen a ngi mos naa gis ku mer waaw du kuréel mbir yaa ngi xamul tey waaw yéen a ngi sallallahu alayhi wa sallam naan gis naa loo xam ne su ko defoon rek meram daal di waaw meram daal di fiira rek waaw mu ne ñu jàppoon rek meram daal di dañ de dañ di yoon yi bëri compte waaw saytaane yooyu indi safara saa ko ci xol rek moo tax bëri compte loolu su jàppee rek safara woowu daal di fay waaw moo tax boo mer rek waaw boo mer su dee daal di loo xamul jëkkënteel rek nga dem jàpp de su la fekkoon nga taxaw jékki su la fekkoon nga jékki waaw su dee de boo fay daal di la mën a dugal ci waaw loo xam ne donc yooyu su la defee waaw boobu naa dee ak ñu nekk rek ñu kaafee moom moom buur léegi guddi gi war naa aroon dëkkër waaw guddi gi léegi dëkkër bi de bokk nañ ci kaafee bi yàlla ñaa ngi de wa sant doon jant bi war amaloo meer waaye laa ko si doon bu leen si jóot di sant ñu naan jant wala amaloo ñu yaa ngi neex la kaafee yi yàlla lañ kat waaye ay jaam lañ ñu moom la te yéen nag bu leen dem si jóot de si jóot si jóot yàlla yàlla mi nga xam ne xala xaw na bind na mu leen de ci bindu ci bindu bëccëg bindu jant bindu weer kooku wala yi ci jóotoo waaye ñu yàlla ni kaase yi ngeen ba pare ñu kuntum dem nekk ngeen saabolu nañu jaamu yaaw moom su fekkee yàlla nga bëgg a jaamu ci jóotam yàlla te mu di jóotal tur yàlla léegi fat baroo ñu dem rëy lu ñoon ñoom ñu won ci jóotal yàlla bënd si nañu xane seen rabu gaa yi nekk nañ fa faram sa ci malaayka yi di ko boole ba ñu digg ñoom la woon ñu ne ko di leen di digg woon naa leen dëkk moom te ñoom daa sa mën a yokk ci ñi ñoom bu dee dëkk ñu ne jaamu yàlla te duñ taay mukk boobu naa yaa fi ak dina ko leen kaate moom boo am na kafara la ak gis ko suuf xaasaa ko muy ay wow te daa am tam na gam wàcc mu ne wala yaa ci moom am naa taw ñu sa sën bu yëngatu wala ba tam fokki ñu ne def dina ko boobu nga xam ne ah yaa dina nangu suuf su wow mu ngi ñëw saa mu àgg si la waaye day yàlla day ñu ne la ko moom xam naa yaakaar naa waa laata lu dee lu dee dëkk lu dul moom dafay misaal ñu ne la ñu naan ak a ñaanal léegi doon dañuy jàng yaakaar naa jaar ko am ñu nga xam ne dañuy nga jaar ko am waaye xaw na bëgg ñu waa yàlla ci ñu leen dëggu yàlla dana leen day seen jëf de amumaan yoo xaa ak a def na sànni ko dinaa ci sabara ay la ko bërëm amoon yaa ci am ko dana mu dikk dikk jëm jëm yàlla am na ñu maa ci wóolu dama tey am jëkk jëm yàlla boo ko jëm yàlla ku fa ñëw yàlla ne ko wóolu yàlla loolu dara looy ragal ak waa fi rek ñu ngeew sànni sabara ku ci gën yàlla lu jox leen maa ci ku ñu leen toog def leen leen toog kooku tëkk la ñëw la ko moom sama mu naa taxaw na ñu ñu na leen ne naka ñaan ko faral dina mu gis ci jaar quoi lama jaa am xam bu kale leen bu nga xam ne ba alquran mooy dañ koo wetu way law dana ko moom alquran yàlla dana leen fay seen jëfal def kay jëm yàlla de way law dana ko moom alquran jële da kitaabum jële la mu adi jum bu ay keraw de jële da boo xam ne am baat mu ko jaar kan sa ko joo xam ne yàlla sangi na ko daa yaa ci di kaddiko ak baat lu naaw bu nday nga dee te téere yee ko jëkkoon wala am kàddu yi di jaaleen te gannaaw de téere yee ko jëkkoon seen lu jaajëlee baatin waaw lu la jaal Alxuraan téere bi ñëw gannaaw itam waaw dañ ko waxee dan téere nag wasal la mu ne xat yi ñun ci këti ay jëkkëram ci jëf jëfam xam ne ñu kiri kun sant ne dama di yàlla de maa yoo xaaral dootul wax ndax kañ ne ànd ci weddi ila ma fàtte la dara kenn la waxee bon na ko ñun ci ñu ñooy gën a jël ñun xam ne ci gën dëkk sa loolu dëgg loolu yëpp dëgg la bu ñu xamul dara lépp lu nga wax waxoon nañu ko loolu jëlee jëkkoon de léegi ñu ñëw ñoom nañ ñu ñëwoon de ñu la ba naka borom sax da doon wax rek ni borom bala ci ñu gëm yàlla wa dooya xaalum borom bu wér la ali ñu mu yaa ngi ñëpp ci ñu nga xam ne lañ ko def wala jaa naaw donc defoon nañu alquran quran mooy alquran ah dañu ñu ko rek lakk da xaaru kon dañu wax ñu ngi ko matal da la ko ci rek ci terewoon ci le ah do ka do ci lakk ci ci lakk yaaram su fekkoon alquran dafa ñëw ci lakk wu yaaram kon ñoom yaaram daa ñu wax ñu terewoon wax ko ci yaaram ndax ñu ko dégg rek daa ñu wax ba ne ah dañu ñun alquran ñu ko rek lakk wa rabbi yow ñu ñu ko rek yaaram muhammad yaaram ba noppi kene bi ñu téere yaaram kene bi ñu téere lakk léegi nag ñu ñu téere yaaram ci téere lakk itam téere wu rek dinañ ko bul waxal ne woo moom alquran bi de jërëjëf ñoom ñoo ñoo amoon gëm nañu bu gëm ci biir wëccu naa woon te saa waral rek alquran bi de téere la boo xam ne dafay dugal su ko ci biir saa waral rek itam waa ci mboolem jàngale yi ayatu sibaay juróom benn bàngoo ayatu sibaay itam way ci ci door a xamul moom ñu ne ñëwee te saaru faraatu waa xam jaa ko moom ñu rabbi ci woon saaram waa te saaru yoonu yaxu ñu ñu ko naa saaru mu ko ñu alaalo wa fi saaram wa nu na dilim na quraan naa wa ci saaram wa ila mara ci ko wala ci ak laa yee kon wala naa ma wa wa ci saaram juróom benn aaya lépp luy jàngalo ci yaram rek mën na koo saafara jaa ko ñu xamul kaw wala dina ñaareel ay ay gëmul saa maa ngi aji na kër gi naan seen waxtu na kër woo moom xamal ak seen maxalaa amee ci ñoom walaay ka ñëwee la gaay ñu naa daw na def na wala ñu makaan ci ci ci barab baay ñu daal di sori yéen bari soo ci dégg ñu dégg ñu leen di wax dafa mel ni pour sori ba baax de ci moom dañ ko joor yar yàlla ñu dégg waaw mooy yéefar ñu ngi mel ni ñu ngi fi xam na ñëpp bi waaw ndax dafa dee moom bu yàgg ak ñu la mën nga dégg ñu koy waxee wala xalaat naa ñun day jox na Musa Musa ak kitaaba tawret wax dëgg fa taw te ci ci moom tawret te dañ ca aw teewal ñi gëm ko ñi weddi ko naka alquran rek wala wala kalimatun dugante ko nag ba sabaqat bu jiitu wala ñu xam ko ci ko Musa Musa ak kitaaba tawret wax dëgg fa taw te ci ci moom tawret te dañ ca aw teewal ñi gëm ko ñi weddi ko naka alquran rek wala wala kalimatun dugante ko nag ba sabaqat bu jiitu wala ñu xam ko ci ko borom ba mais yàlla dafay ñi ay saal ak yoonu dëkk yi gëm yàlla wax dëgg kon daal yàlla ñoom waaw way ñoom naka ñoom way la dina dañu takk ñu nekk dañu ci moom ñu ci yàlla man xam ne rek jëm ñu fa dañu jëm diiru kon na ci jëm ñu ñaan boppam ko jëm lu baax sa bopp sa ndax yoon yaa koy jël wa man afaakum ñaawalam fa ala yaawara boppam lor ñaawalam ci moom lay dellu wa ma rabbuka di borom sa di salaam muy borom ak tooñ yaa ngi jaami rek yàlla du tooñ kenn bay wàññi ay jiw wala ci yàq dara ci ay ñaar الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقدره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى أولياء أئمة الشرك الظاهرة والباطنة ay gam waxoon ne dana ñëw ëllëg ñu ñëwee nan ñu fay leen aljanna ñu weddi ñu fay leen mbugal loola kañ la ñu laaj yonent bi ne kañ la pencam yàlla mu ne ñu rabbi def na delloo elmu saati xam-xam ak bés penc yi day jëm ci moom yàlla de kañ la pencam yàlla taxaw nag loolu kenn xamu ko yàlla jagoo loolu de ñu ngi delloo ci yàlla la waaye dina dikk de amul fukki de wa maa taxruju jënd min samaraatin meññat min akmaamihaa ci kër yi ko mucceen wa maa tahmilu ëmb minum saa jigéen wala tada'u wajintini ila gani la rek xam-xamam la rek ci jigéen ci ëmb doom wala mu di ko wajin lépp ci xam-xamam yàlla lay daw ne ñett bu nekkee ci ëmb doom waaw nga xam ne ci dëkkul yàlla xam na ko de wa yawma yunaadihim bés ba dana mu woo leen ñoom jindee yi nit ci seen bàmmeel ay na suraka yi ana way bokkaale sama nag suñ jàkkalee ñëpp ñu taxaw fa kanam yàlla nag mu ne di ma ñun mun kul yow ma kenn tontu dégg nga ana nag sama bokkaale rek laa wax da ngeen takkoon yeneen yàlla yi duñ maanaam ñoom xaaloo ñu ne asam naa ko xamal nan la léegi maam naa def ci nekk ci ñun ñun tey jii ak tey dañuy ànd bokkaale rek ñoom ñëpp ñu ne ko seere nañ ne amuloo bokkaale rek laa wax rek waxal la fàttu naa am nga rek ci ñoom maanaam ñoom dañ ne ko ñëpp ma di jàmm ko ñu xamu ci jëf wasannu dañu wóolu ne maalawum génn yaa leen min may min ab daw waaye de ñu xam seen ne amul kenn bu mën a jaar garaaw yàlla de laa yëpp amul yokk sif min saanu nit min doxaay xayri ci ñaan awum de doomu aadama du tuur mukk du doylu mukk ci ñaan aw niw waa moom yàlla xurum jaasa xurum jiitam xurum yàlla te ñaareel waa ne ñaareel itam te doomu aadama dara du ko fekk ñu mën ci def ñu ngi waa aw aw suñ ko ci suuf rek loolu mën a koy def ci dëkk waaye ba ñu ngi dindi ñu ma xam ne def na loolu ñu def lu baax ñu def lu bon nag waa affaire yi doomu aadama mooy loolu. loolu mooy sababu doomu aadama nekk di gën ci cité mooy sababu yi tam doomu aadama nekk di ci ci fekkee ni doomu aadama yàlla dafa la mën ci moom aw yi lépp lu mu faaw ci lu mu bëri bëri xeex na lool wala ma xam ko jot ñu ko war a sooyee parce que ñëpp ñu ko war a sooyee moom la wax dama waaw. dëgg yoo xam tam li laaj rek bu ko yàlla jox rek mu laaj ca wàll lu bàyyi loolu ko ko muy nekkee te fii ñu jëlee naka yàlla wax dëgg mu laaj moom tam jëlee ñu saaw waaw jëlee ko nii naka noonu itam su ko fan baanee nga xam ne ñu ngi koy xay itam lépp lu mu def ci lu bon xeer na ko dana def ci dana ko mën lu mu def ci lu bon rek dana ñu ca wàll rek waaw waaw te dañuy gasee ma am ba nga ko muy nekkee ci fii léegi de moo tax doomu aadama mooy gën ci mbindeef su fekkee ni waaw waaw jamono bi yàlla moom kay na ci moom waaye mooy gën ci mbindeef itam su fekkee ne soxal ba la gën ci moom la tey mooy ki nga xam ne boole na rohaaniya waa ak jismaaniya di ko def suuf di ko def kaw lépp boole na ci moom moom rek mën a nekk di xalifa yàlla ci suuf waaw waaw moom mën a nekk itam di noonu yàlla ci mbuute kon dana doon su fekkee nekk na ci noonu yàlla de way na soro yàlla am na ko soro ak ñàkk soro sax sax yow suuf naa ko waaxoon la xam nga suuf naa ko waaxoon la man yàlla de soo xamee nag ne waaw ñàkk ci sa gëstu na moom damaa la mu ne sax na nag waaw loolu mu ne sax ci sa gëstu rek loolu suuf nga nii way na la naaw yam motal nan ko am motal am ko ak ak yëpp ñu naa ko ci dëkk ñun ñu naa ko faraa te gannaaw sax sax ak balaa mokkatu boobu defoon na ko day wax dama xam ne moom la xaw ma lii daal ñàkk na lii am na rek bu fekkee yàlla jox na ko nag am borom jox ko ñëpp mu daal ne ah man dama xam nu may def dama am xam-xam ne ñu daal di jëlee waaw bu bu ko yàlla rek ba wér sax dina wax ne moo faj boppam. moom ñu xam ne bu ñàkkee boo xam ne dana wax ne moo amal boppam ne ñu daal def ñu daal def ba am ñu na am waaw lépp lu lu lu yàlla def ci moom rek daf koy xasal ci boppam de. man kay teg nag naa wa maa suñu jox ko nga baax a dégg ci sax xanaa yàlla kon naa ji taxaw bu dee su ñëwee ba doon ñaar fii mu waaye waaw tey ba ñu ne dénk bi yàlla sax du dëgg wala yow dëgg waaye jam delloo na ma daa wax yow nag su borom sama nga dina kaa dina ko ñaan ma anda wa ko moom la lu naa yàlla de su fekkee ne jekk ji ñu wax ci na sore am na sax ah wër sa benn la rek ko xam nga sa boo dem rek ñu tey buñ demee alaaka rek am balaa jàll jooju ñu ñu ma koy jëlee si rek ñu ngi leen a tuur sa kii ci àdduna loolu lañ leen di wax ci alaaka rek tey bu ne wala na ma de am na wala rek wala na solo ala ci ñu ñaan ko loolu ñu ma ko leen di jël wala mu am na mu wala mu ko leen na sa mu bu wal am ci ñu ga ci ko ko mu wala ko bala wa ila anamna de te no halin tan ci nit ala lu dëgg doomu aadama di ko mooy boo xamee ne yàlla jox na ko xéewal dafay dëdd fàtte bootamtu de wanaa tam dem di jaani ji ji bootam de daal ne ne ci ci ci daal demam nga mu ngay lay lu xaar way laa ma soro jam jam na ko soru tasa do ay borom nga la xari ji ga ji yàlla waaye soo xamee tasa ñoo ne ci moom la dafay toog lu yàlla waaw di ko ñaan ñaan boo xam ne doo am gaare doomu aadama nga boole ji ji yàlla yëpp waaw moo ci gën a mat su matee moo ci gën a yéen itam su fekkee ni tey dafay xure waaw ndax insaan waaw mooy alam akbar de nga xam ne moom la sofi ay kay wax liggéey yi ñaari xaaj la liggéey yu ndaw yi ak liggéey bu mag yi liggéey bu mag yi mooy xarab ak lépp lu nekk ci ronam asamaan yi juróom yaara suuf juróom yaara sax xarab ak suuf waaw ak suuf yëpp ak bay ci mango ak ak jàll ak safara yëpp ci ron xarab la nekk xarab mu yëpp lu yàlla bind waaw ma ko de mooy alasan bi ko fekkee suuf yëpp loolu mooy alamul akbar waaye soo seetee doomu aadama rek da ngay jàpp ne doomu aadama mooy alamul akbar rek ndax mboolem nekk ci ñi lay yéey tasaaroo ci lépp yàlla daal bàyyi leen ko ci moom nit ki nit ki tuuti fii de lépp ngi booloo ci moom te am mënu ne ci moom lépp ci alam du koy jage ñëw nit yàlla moom nga xam ne moo ko muur moom même si moom ne xalaat lii daal daal di ñëw rek ba mboolem yàlla loolu moom moom la am na war a jëlee ay jëlee te yàlla moom moo di xalaat bakkan bi mooy tuuti xol bi mooy bay ci mamoor nooy nooy yi nekk ci xolof jaam bu gëm yàlla moo ñu doon teewlu yàlla yàlla yi doole yoo yi nekk ci nit ki moo taxaw taxawaayam malaayika yi naka nga xam ne alamul akbar ak li ñett ci li ngeen di gis la ak juróom-benn fukki des ak ñett ak juróom-benn fukki bés ci doomu aadama yi tam ñett ci li ngeen di kenn ak juróom-benn ak ñett loolu la ñett foofu ci li nga xam ne mooy alamul akbar nit ki nga xam ne alamul akbar am na ñaar fukk ak juróom-ñett ci wàccuwaayu weer la dayoon ca xaaru yaasiin nit ki itam ci la gémmiñam am na ñaar fukki wàccuwaay ak juróom-ñett yoo xam ne ci la xaraf yi xaraf yi baasi yi ci la seen maxal yi dooroon di génne xaraf bu nekk ak wàccuwaayam nag nga xam ne weer yi guddi bi nekk ak wàccuwaayam waaw waaw kooku moo taxaw taxawaayam wàccuwaay weer yi ñaar fukk ak juróom-ñett nit ki nga xam ne aadamu nag barka fa am gënu yi yàlla jéegee ci wasamaa yi ak juróom ci juróom ñaar la yoo xam ne ñooy doxal xaalam bi nit ki itam am na ñaari bëtam ñaara boog ñaari bakkanam waaw ñaari noppam waaw gémmiñam ñaari loxoom ñaari tànkam ñaari génnuwaay waaw ak jumbax bi dégg nga muy ak jëriñ muy ñaar fukk muy fukk ak ñaar moo taxaw taxawaayam kuréel gi nga xam ne fukk ak ñaar lay te soo xam ne liggéey nit ñi daal nit ñi tam ak soxam nga ay fukk ak ñaar lay tëddee ndax nga xam ne Adamu nag bar dafa am suuf yi juróom-ñaar asamaan yi juróom-ñaar nit ñi tam jar baa ngi fi jineefam boppam la jar jaa ngi fi jineefam boppam la yàpp waa ngi fi jineefam boppam la sëñ bi yaa ngi fi jineefam boppam la waa yàq baa ngi fi jineefam boppam la rajim daan bi mooy yàq bu mooy ñu tegu ci yàq bi am ñu ko jëlee waa xam ñu di juróom-ñaar naka nga xam ne alamul akbar dafa am salaatu bu sayaatu sabati juróom-ñaari guddi yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo ci dem alam bi waa nga xam ne juróom guddi yi ak jant benn weer muy ñu mën doxal lépp lu waaw bàyyi ko kaw jëm ci doxal juróom-ñaari ba ci ñëw ndaaj nit ki itam waa xam na gis waa doole gi muy gisee doole gi muy déggee doole gi muy fóote doole gi muy mose nag am ca moom waa ak doole gi muy lambe waa doole gi nag doole gi muy wax mooy lambe bi doole gi nag xam nga xam ne ci lay xam rek naka nga xam ne juróomi guddi yi ñaar yeneen di tëbb naka noonu nit ki itam juróomi cëram yooyu lambe yi yeneen di tëbb lambe yi itam xol bee koy tëbb de juróomi guddi yi itam weer weer di tëbb weer weer jant bee koy tëbb lépp lu nekk alamul akbar ñu nekk ci waaw nit ki de naka nga xam ne waaw waaw alamul akbar dafa am waaw suuf li ko doomu aadama yaram moom mi ngi mel ni suuf garab yi nga xam ne dafay sox kawar mi ngi mel ni suuf yi nga xam ne dafay sox gàncax garab yi nga xam ne du sox kawar mu mi ngi mel ni suuf yi cañ yi nga xam ne gàncax du fa sax saxam mi ngi mel ni géej waa ay bitigam ak yi te fii itam waaw mi ngi mel ni yow day ak yoon ya doon ñëw nga xam ne ci la ndox yi di daw moom nit ki nga xam ne alamul akbar am na noor ak nawet waaw loolu rek cooro di ci itam di ci góob ya dafay mel ni nawet bi dañuy soog a gis ci loolu nag day tàmbalee sax bu loolee dafay mel ni waxambaane bu nooree mu mel ni mbayum bi cooro ne mu mel ni magat nit ki boo xamee ne mi ngi jubloog yow dafa mel ni dëkk bi dund waaw su la joxee gannaaw xëy na ñaan la suba su jàppee mu mel ni guddi la su jógee mu mel ni bëccëg la su reeree mu mel ni melax la su nokkee mu mel ni ngelaw la su xaajoo mu mel ni manu la waaw su jooyee mu mel ni dafay taw nit ki nga xamee ne tey alamul akbar am na suuf nit ki yaramam suuf la waaw keroog bi mi ngi mel ni suuf bi yàq yi mi ngi mel ni goj bi rek nekk nga xam ne suuf bi yàlla def koo xam ba ci goj dañuy doomu aadama yi tam ay yàq yoo xam ne ñoo ko tëye mooy moo mel ni goj bi nga xam ne tey waaw ñoo tëye suuf bi rek nit ki nga xamee ne alamul akbar am na ay malaaka am ay saytaane am ndigla yëpp doomu aadama ji mën naa xam yàlla seen demee ni malaaka ko fekk jamono muy sax daal boromam di ko tudd benn ci yaale moom naka malaaka yi ay jamono nga fekk ko muy taxalu bon mel ni saytaane yi dana mer ba mel ni gaynde waaw sax ba mel ni gaynde dama ba mel ni gaynde muñ ba mel ni mbaam muñ waaw waaw ba mel ni gëlëm waaw mën a wul mën mën a yàq ba mel ni tudd mën a wul ba mel ni tudd mën naa yore njëru ba mel ni ganaar mën naa am njëru naka baaxaay yi ci njëroo waaw mën naa waaw maare te du doy lu mukk naka jalat ak naka xaraloon mën naa moom doomu aadama lépp loo xam ne nekk na ci alam bu akbar lépp booloo la ci nit ki rek la wax naka nga xam ne alam bu akbar am na ñetti ndox adduna bi am na ndox mu neex am na ndox mu saf xorom am na ndox mu wax xaatu xasaw nit ki lor ay lorom ndox mi nekk ci gémmiñam ndox mu neex la lu tax boobu su ma xamee woon nga doo doo lekk ñam mu neex ci àdduna ndax waaw kon doo lekk rek mu weexal ko yàlla xam na loolu moo tax ndox mi nekk ci sa gémmiñ dafay neex bàyyi ma moo tax nga mën a am kasoog ñam ndox mi jóge ci bët booy jooy kooku dafa wax xatt xorom lu tax bët ci dara mooy morso gerees la mu yàlla foofa rek te gerees moom bu soxla xorom rek daal di bët moo tax yàlla dëkkale ko xorom ci moo tax bët bi nga tuddee waaw ndox yi nag yàlla def ndox bu nga xatt ba xasaw waaw loolu moo ko tax ndox bi te ñu nekk am nañ ko lu mooy ndox moom dañu dégg rek ci yow jaww ji te taxut wala ndox bu wax ni ci yàlla denc comme dundal gi naaw nañ ci ci dem ci yoon jël ay lëm yàgg waaye li ci gis bi rek daal di génn wala mu dee ndax waaw ndox mu wax xatt ba xasaw moo ne ci biir ndox bi xam ngeen ne kon lépp loo xam ne am na ci maaram bu nag ba am na ci jënd yi ci rek laa wax ne loolu nag leneen loo xam ne nekkul ci maaram bu nag ba moom li mu xam tey mën na cee yaatu nga xamul nga xam nga xamul nga dund ko maanaam nga xamul ko. gis nga loolu boobu sax bu ko dara war a tudd nga liggéey yàlla rek rek buñ ko liggéeyee yàlla mooy yàlla rek boobu dafa am lu ko mën a xoolee. kon loo xam ne alaaji kula ci leen ma li ci amoon dem nekk naa alxuraan ñu leen di laaj ci kese yàlla moom ko ba suñ ko xëyee loolu ci ci moom man afadu anak am liggéey réer ñu mën nga ko taamoon waaw waaw waaw xam nañ ne jot na ko waaw ndig bu rëy la ndax ko gannaaw ndig bu rëy la yàlla dana la sàmm de waaw kooku mooy téere bi ne boo xamee ne seetlu nañ daa fekk yàlla ci wax yi ak nit yi danañ xam ne alquran bi ne mooy dëgg de waaw la yàq ci ndax koy yàq ci ndax ba àndaloo naka moom te maa gis la dana mu xalaat bi ci dëgg la ndaxte du yàlla lépp loo def rek dara ndax wax dëgg ko ci lu néew lu bëri allah dëkk bi ñoom naka ñoom ñu def ñu koy nekk nañu ci ñu nga xaar yàlla fi ñu ci dajeeg borom ci ren ñoom nag dañuy gis ne dajeeg yàlla du bëri yàlla bu bu xam dara lu loo def allah dëgg ñu doon naka moom bu bu ak léem la mu ci ci ci yàlla léem na waaw lépp la ci xam-xam ak ci kàttan bi dana la tey yooyu waaw seen jëfandikoo wan bi yàlla wane ay kaaruñoom ci gox yi ak ci bakkan yi du tam dugg ñu ne sunu réew xamul woon ne ayaat na ay kaaruñoom bi laa baax ci gox yi mooy réew yi nga xam ne yàlla bu na ko yonent bu fi am ci biir ak ci bokk seen ñoom ñu makka mooy batu makka sa après sore na ci la wu yàlla na na ko kon nag nga xam ne mun na doon ko koo wane yonent dina leen nag waaw ba ñëw ci makka waaw nekk di buur Makka saaba ni ngeen doon xeeb waaw ngeen yëri ñu ngi ci seen buur ñu ngi ci seen kilifa loolu am na dana ñu ngi tam loolu law ka daj réew yëpp de loolu am na te ci jamono bi dina amal ñu xata waaw waaye kaw seen yàlla daal ñaari xaaj la waaw ñi ñi ngi gën ci gox yi ñi ngi gën ci bakkan yi daay woon loolu waaw mooy moo ko fa lañu jënd yonent yi waaw waaw am wàllu yi de waaw am na yonent yoo xam ne seen i kaas yi ci gox yi la ko yàlla wane lu demee nii nag yonent yàlla Muusaa nga xam ne bu ko sonnee rek mu soppeeku jaay njàngoor waaw loolu yow boobu ay kaas yi la yoo xam ne ci gox yi la ko yàlla feeñal saa ba dañuy laaj waa ci woon asamaan ñëw suuf kaas kaas yi la ñu jëlee ci gox yi jëlee nag saa yu bëgg nga xam ne mën nga jëlee woon sa bëgg waaw boobu itam yooyu yëpp ay kaas yi gox la. akaar bi ñu yàlla wane ci bakkanam bi ci nekk loolu mooy kaar bi ñëw yàlla moo ko sallallahu alayhi wa sallam ci nga xam ne ci gën a mag mooy alquran bi nga xam ne ak wóyu la boo xam ne dañ ko wàcc ci moom mu wàcc ci jëmmam rek waaw boo dem kaar bi ñëw yëpp kon ne moom kaar bi ñëw ko moom àndal waaw arab rek la boo xam ne ci jëmm du taxaw waaw kaar bi ñu yëpp ay jëmm yu taxaw waxee ko bañ gën gisal lu bokk ci ñoom ñu moom bët ci kat yi gën a waaw waaw ci gën a def ba baax mooy jeex loolu moo tax ne wàllu yi ñaari xaajal wàllu yi boo xam ne Muhammad la doon ak wàllu yi boo xam ne beneen yonent la doon yonent yi dul Muhammad yonent boo xam ne wàllu yi boo xam ne dafa doon beneen yonent yi yonent yi dëkk yi ay muumi baaxam ay kaaw ne moom dafay kay ci gox yi mooy wàllu yi dañu ci kanam waaw boo xam ne yonent la doon ay muumi baaxam ay kaas yéen a karaamaam dafay nekk ci bakkanam de loolu waaw yàlla mu ngi ko ci daay waaw waaw ba mu njëkk yee yàlla ba waaw am ci meloo yàlla am ci ay yoon yëpp bu mu yeesalee xalamam rek am xam-xam bu bees bu njëkk yéen a boromam kooku mooy waaw kaas yéen boo xam ne ci bakkanam laa ko leewaat ci yéen dana mat tuur moo tax ba jimee dina ne am na ñuy dox ci géej gi dem waaw am na xam ne ñu ngay jëlee ak maaka waaw mu ngi doxal ci géej gi rek waaw xam nga ñoo leen gën bu mel xamal ñu dox ci kaw géej gi dem xaalis ñu ne ya nga xam ne ñoo leen di gën di ñëwee géej gi jaaree parce que ñu wax doon fekk leen ci géej gi rek daal di suuf ñoom dañoo leen gën a mën de waaw ñu ngi dañoo am yàlla def seen kaw ci seen bakkan waaw ñu nag yàlla di leen waaw ñu ngi ay xaral ma ñu leen woon ay waaw kaa gën ci gox yi rek laa waxee nit ki nga xam ne sa xale xale bu ndaw ñu doy nga di ko waaw kon nag nga di ko woon ko sama biir yëpp waaw waaw bu ma delloo wax leen ko def loolu de